sant yéen euh, waa journaliste yi ñëw fii yëpp pour euh, fekkee point de presse bi nga xam ni moom euh, directeur de la sécurité publique di def chaque année su màggal gi desee ñaari fan et pour leeral taxawaayu police ci magal gi taxawaay bi nga xam mom lañuy am su magal gi déssé ay semaine ak ñaari fan yi magal gi ba ñatt ak yeneen ñetti fan yo xamni moy teggul ci magal gi eh, dañu police dafa tek ben plan bo xamni mom lañuy wax magal ak karange mu nek continuité plan bo xamni ñu ko doon dérouler depuis le mois de janvier tudé ko euh, samu sa te commissariat spécial Touba ak commissariat central Diourbel ak commissariat urbain de Mbaké, àndandoo ci di ci di ci di ci liggéey ren nag comme magal gi dafa nek dafa am ci euh, période bo xamni dafa dajé ak euh, Covid 19 bi voilà dajé aussi ak euh, ak nawet bi donc police dafa quand même adapté euh, plan d'opération adapté ko ci ñaar yi xew-xew yoy nga xamni ne xew na te voilà daawut xew ci magal euh motax ñu teg plan bi am ay objectifs objectifs yi nek moy fexé ba nit ñi mëna magal ci ci jamm fa joggé ba bañuy aksi mais aussi magal ci jamm mais mën ñibi war ci jamm te aussi sen kom kom ak sen li nga xamni mom lañ yor ci alal mën a ba ñu ñibbiwaat fa nga xamni fa lañ fa lañ joggé donc mais aussi à part lolu mais def régulation circulation bi permettre nit ñi ñu mëna dugg ci lu wul lu jafé wul mëna génn ku nekk fa nga jëm nga mën fa ag mëna a loolu régulation circulation bi la euh, dañ cee dañ koo gën a xoolaat ndax li ma doon wax léegi mooy nawet bi mu dajal te am yoon yoo xam ni ndox mi da koo jël am yoo xam ni aussi yoon yi euh, jaar fa du du yomb donc moo tax ñu réadapté ko ba nga xam ni dañ permettre ñëpp ñu mën a dugg def seen màggal mën a gënaat ci ci ci jàmm en tout cas te mu bañ a bañ a jafe. mais aussi comme ni ma ko doon waxee léegi dafa période de pandémie Covid 19 Donc aussi objectif la woon ci plan bi voilà pour que faire que ñu mën a euh, coronavirus bi mu baña développer. développé bañ a ba nga xamni nit ñi dinañ mëna magal ci si ak xel mu dal je pense que euh, résultat yi ñi am wané na ni euh, plan bi niñ ko exécuter euh, baax plan bu mucc ayib la et pour exécuter plan bi sur euh, opération bi euh, lu mat ñetti téeméeri agent ñoo ci doon depuis le 7 septembre donc ci ay opération régulière Goudi ak bëccëg suba ak ngoon voilà di opération yoo xam ni ñii dañuy yor oto ñii dañuy dox ñii dañuy sol ni ñii dañuy sol seen tenu civile mën a dugg ci dëkk bi pour mën a saytu mën a aar kaaraange ci li nga xam ni moom lañ doon guddi checkpoint yi lu mat ñaar fukki checkpoint lañ doon teg ci diggante Touba ak Mbacké voilà pour oto buy dugg walla buy génn wala muy saret ñu mën a xam li nga fiy dugal ak kan moo fiy dugg suy génn aussi ñu saytu xool lépp biir oto bi maal beeg bata gan beeg lépp suuf fëtë yi xam lan moo ci nekk ndax dara nekku ci nga doog a mën a génn et yooyu am na ay résultats yu joxe mooy junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yoo xam ni teg nañ leen loxo te ñooñu am ci ñeenti téeméer ak ñett yoo xam ni dañoo solutoon masque euh, fanwer ak juroom ñent yo xam dañ leena japp parce dañ doon soit jaay yamba wala ñukoy tux ak fanwer ak juroom ñatt yo xam ni dañ doon sàcc ñu japp leen ak ñaar ño xam ni ay dañ leena japp ci association de malfaiteurs damay joxe rek yi nga xam ni quelques infractions ndax liste bi xaw na xaw na gudd jàpp nañ ci ñeenti kilo yi yàmba ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ay cornet ak benn join loolu mooy quantité de bi nga xam ne jàpp nañ ko ñaar fukki nag ak benn yoo xam ni dañ leen a gis ndax dañoo réeroon mu feeñ ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari nit yi nga xam ni jàpp nañ leen ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benn yi ñoo ñëpp jëbbal nañ leen procureur de la république ci sécurité routière bi 2541 muy ñaari téeméer ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn yoo xam ni ay pièces yuñ jàpp la soit muy carte grise wala muy permis de conduire téeméer ak juróom oto yoo xam ne dañ leen a fourrière ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent moto yuñ fourrière immobilisé ko ak ñeenti téeméer ak ñaari saret euh, amoon ay accident yoo xam ne yiñ constaté ci période boobu mu nekk téeméer ak fukk ak ñeent euh, ñeent ñeent fukk ñeent fukk yi ak ñett nekk ay accident yoo xam ni ay nit dañ cee gaañu malheureusement am kenn koo xam ni da cee da cee farfaatu ak euh, li ci des nekk juróom-ñaar fukk ak benn yoo xam ni ay yàqu-yàqu rek la oto yi am plan boobu nag pour ñu man ko dérouler waxoon naa ko léegi liñ ci def ci élément dafay ñëw nag léegi mom jeex ñu jël nak léegi dugg complètement ci plan bi nga bi nga xam ne lañ pour nga xamni magal màggal gi noonu lañ koy gérer té lolu police mi ngi ci tek dispositif bo xamni liko composé mi ngi tollu ci ñaari junni élément ak juróom ñen fuk ak ñett mu nekk lim bo xamni police yokkaat na ko ren ndax daaw àggutoon àggutoon fofu ñu am yaakar ni Euh, dispositif bi ak effectif boobu yëpp dinañu permettre taxawaay bi ñu war a am ci màggal gi te daan ko taxaw ñu taxaw ko te yokk ko euh, effectif boobu yëpp sécurité publique la direction sécurité publique ak GMI ak yeneen direction yi nga xam ne ñoo bokk ci police nationale ñoom ñëpp ñoo ko composé ñoom ñëpp ñëw tey pour

léegi nag amee pàcc bi ci bi nga xam ne moo ci gën a li ñuy wax tubaab wax névralgique mu nga xam ne moo ci gën a sensible mooy li nga xam ni moo ëmb jumaa ji ak euh, xabru yi ak euh, kër sëñ bi ak yeneen këru xalifa yi nga xam ni ñoom ñoo wër jumaa ji ba jàpp euh, armée yu yu njëkk yi donc foofu day bari nit nit difa di donc pour éviter nit ak auto yi di fa nekkandoo muy indi ay ay jafe-jafe ba ay nit man ci gaañu moo tax zone piétonne la nekk mooy auto du fa ludul lu dul da ngaa yor ordre de mission muy nekk une autorisation spéciale boobu rek moo fa mën a dugal te autorisation yi ñu ñu koy jox mooy véhicule yi nga xamni ni dañuy liggéey ci ci magal bi soit sécurité lay doon voilà wala euh, ñooñ dañoo moy comité d'organisation ñooñu ñooy am man a dugg foofu te ñooñu nécessité mooy tax ñu fay dugg sinon benn oto du dugg ci secteur boobu voilà loolu laa amoon lu may lu ma leen di wax tey ci euh, dispositif bi nga xam ni moom la police euh, indi ci màggal bi voilà di ñaanal ñëpp en tout cas ñu